Sénégal nañ ànd ak suñu xel te ñun ñoo bokk Sénégal kenn mu koo xar ñaar. Mhm. merci mais nañ di wax ne dëgg mais nañ wax ne ku xam ne ba nga fi prison ba yow nan lay nekkee président fan lay mhm. nekkee président comme dañ koo dañ koo dàq kii ko mu rey la ay doomu jàmm yu bari. lan mhm. lañ koy bàyyi maanaam day jiite Sénégal. mais yow nit ñi est-ce que ay yeewu nan ma damaa xam Sénégal wala boog bala wala dañuy woo benn Jean Paul Jean Paul yi xewoon ñoo ñëwoon ñoom ñooy yeewu ñëwaat ñëw ñëw ni euh, Ousmane Sonko la di fal. mais fii Sénégal. dee démocratie mi ngi dox Macky Sall li ñu ko dénkee réew mu retraité ko. Mhm. tout ce Ousmane Sonko Pastef Pastef sa mënul am. Mhm. parce que dama wax dëgg parce que ñoom tey heure yoo xoolee li xew seen Afrique mu xew li xew si monde bi yow amul kenn koy xeex di xeex sa njiitum réew. d'accord di wane ay nit ñu faatu nga yaakaar li nga réew yow li nga wan yow maam ñu dee sa respecté woo leen ndax ñi dee dañoo dee dañoo dañ leen a naxoon lu dee ci heure. d'accord tey bu ñu mënoon jóg yiy jugaat lépp lu ñu defoon. Mhm. nga jël seen projet di ko envoyé di ko def ay rek famille ñu dee la non c' est vrai yow da nga xamante ban réew la léegi boo xam ne ay réew mu lislaam ay réew mu nangam nangam. merci merci ay trois diso ay non kenn dox lépp quoi lépp jóge fi quoi. maa ngi bàyyi yéen gars yi dugg maa leen ziar ba def seen liggéey. merci merci merci merci merci merci euh, <laughs> Youssou Youssou Cissé mu ngi laajte nag waa kii moom ban Sénégal. ban Sénégal la nekk régi régi mais la mu. <laughs> d'accord c' est pas grave ñu jël ki nekk ci buum bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. Euh, Jérôme. Mhm. ah ñu ngi ziar saa kii bi dafa daggul dafa dagg xam naa sa liñ ah. Ah, nii ah, kon loolu la kon ci wax ne waajoo bi dekk cadre quoi waajoo bi yar de. Mhm. Mhm. parce que li muy wax li muy wax ndaw jàmbur ci ndeyam rek la ko gis quoi. parce que Macky Sall am nañ droit def suñu manifestation loolu ci constitution bi la bokk. Mhm. te Macky Sall képp ku naa fekkul xam ne ni mu yoree réew mi baaxul Macky Sall mi ngi rey mi ngi tëj mi ngi di def di deful dara par dafa am ambition te nag fen baaxul fen terloo baaxul mooy gis dëgg di fen xam nga Assane Mbacke moomu wax na li mu wax yow xamoo Assane Mbacke tey xamoo ko ëllëg nga ne li mu wax du dëgg xam nga fen dañu fen. dugg ci rajo bi nag di di di contredire koo xam ne yow wóor na li dara du ci dëgg fen baaxul loolu fen weesuwul loolu. ab jullit du fen ndax fen day yëgal aras. Mhm. waaw fen mooy ñëw di wax loo xam ne wóoru la naan kii moo rey jiw kii moo rey ñu rey di ñu rey gis nañ. Mhm. ay ay ay ay ndër gi yor ay ay yor yor yor fital. Mhm. di gërëm daal la ay policiers la ñu àndal. ana ana ana Didier Badji ana Fulbert Sambou leen fi rey mm-hmm. ah Parcelles Assainies policier boobu ñu gisoon mu mu tiiree benn booy xam nga nu mu tuddati Moustapha xam nga nan le boy terreur la tiiree gisee na ko tël bu ne këpp kooku kan moo ko rey nañu bàyyi fen fen baaxul nañu bàyyi fen te ñu ànd ak yar fii loo fi wax mën nañ la tontu nañu bàyyi mais mais Macky Sall su Macky Sall bu defoon la moo doon def bu génnee kenn du koy yuuxu mais dafa mayul nit ñi démocratie mm-hmm. parce que daf ko delloo ginnaaw parce ñun ñi dañ ko xeexal ba mu falu nga war Sénégalais yi di tëj di rey mënugul képp manifester. kon nag comme nag Sénégal ñu war ko ne aux États-Unis en démocratie moo fa nekk nit ñi dañuy di la wax lu leen bëgg te mënoo ci tous. yi dañuy dem ba maison buntu Mariana Branche te kenn du wax dara. gis nga gis nga euh, Espagne Macky Sall euh, ni ñu ah, police Espagne ñoo ko escorté woon kenn ku député nga. te xool gis nga Sénégal ci boppam ñoo civilisé dañoo amoon net dañoo amoon état voyou dañoo amoon état assassin kii rayaate moo fi am Macky Sall nag kuy ànd ak moom ci lii naa fekk nga te nag gis nga fii nga sant Mbàkke nga sant si nga sant leen moo ci am ñu ñëpp nous sommes tous des citoyens nous sommes tous des citoyens te l'islam cinq ponk l'islam moo fi nekk son cinq cinq ponk yi amul nga bokk ci tarixa sàngam wala déet cinq ponk moo fi nekk man de sama maam moo ma gënal maam yi ñëpp nag man ndax man sama maam li ma li ma defal maamu kenn defaluma ko. Mhm. te maa ngi koy sant di ko ñaanal. Mhm. waaw du ma sant maamu kenn te sama maam ne fi ndax defal ma loo xam ne maamu kenn defaluma ko. ndax nitu yàlla nekkul ci sant. Mhm. nitu yàlla nekkul ci sant de te bu ñu jowaatee ay kilifa diine ak kilifa tarixa ak nitu yàlla ndax nitu yàlla du lëkkaloog buur nitu yàlla du lëkkaloog buur de. ndax fii ñu ngi rey xale yi suñu doom yaa jël géej gi di te déggoo kenn ku wax ñoom ñëpp ay complice lañu. te ba Macky Sall jekkee ba Macky Sall jekki dee ñoom ñoo génn di naan intervention ana marabu yooyu gënoon di ñaan intervention déggoo ci kenn tey mi ngi rey di tëj di def lu ko neex ñu ngi ne pat ñoom kon na bu ñu kenn fontoo mooy que de li ñu wax man moom laa gëm jusqu'à preuve de contraire muy Assane Mbacke. d'accord waa nit koo xam ne yow xamuloo tey xamuloo ëllëg yow fekkee woo nit wax ay waxam nga ñëw di ko weddi naa fekk weesuwul loolu ak waxum dëgg ak ñàkk ab yar di saagal di saagal ti Macky bu meloon lu ma war a mel kenn du dem États-Unis fa manifester la ñu mënul manifester ci Sénégal moom lañ dem ba ci États-Unis dafa manifester di waneen foofu mooy démocratie te policiers nga taxaw mhm. te boo déggee dëkk boo xam ne moo gën a moo gën a moo gën a radical ci ci ci ci ci ci terrorisme mooy États-Unis ñooñu daanaka leen ñu ne dëkk ba def seen manifestation policier encadré loolu moo amul Espagne moo am France moo am fépp mais pourquoi ñu dem euh, manifester te ñu ñu ji ñu ñu xeex suñu démocratie ba àppañ ba ba ba ba ba am ay avancé Macky Sall ko def dañ koy dénoncé ba sàmbati ci dem loolu Sénégal bañ mhm. mhm. Sénégal Sall def liggéey ci delloo ginnaaw ci Sénégal moo am waaye liggéey bu baax. am d'accord ndax càmmeel tey la raw. Mm-hmm. njur njaaj gi tey la raw. merci tappale si caisse di yàq moo fi am corrompre journaliste ba nangatu ñoo wax te képp ku ne liggéey na fu kenn liggéeyul da ngaa naa fekk ne ay fen la ay kàcce la dafa delloo réew mi ñu na démocratie amul Abdoulaye Wade bàyyi fa démocratie mais Macky Sall kenn ñu ma manifeste presse bi presse bi sax ñu li ma liggéey ci dëkk bi dañoo delloo ginnaaw. d' accord naa fekk dañuy ànd ak moom Ousmane Sonko nag naa du ko bëgg. d' dem kaso nag teew la nekk président. Abdoulaye Wade dugg na kaso na ci doomu aadama la. yàlla bind ci doomu aadama ab naa mënu ci puus. d' accord boo soxoree <laughs> ci dara du nit ki. mën nga nekk jërë nit ki di di lekk deram loolu rafetul. d'accord nit ki da ngay wax loo xamante ne preuve nga ci am bu leer nañ. mais loo xam ne amul ci benn preuve. soxor bi ñaan benn nit ki tax la nga di ko sosol chaque jour nga dugg ci réseau bi di ko sosol loolu ak naa féq ak naa féq weesuwu ko. ak benn nit ki di lekk deretam di lekk deram donc moo fi nekk. merci merci beaucoup merci merci yow moom vraiment <laughs> sama xarit la nag vraiment sama man man man bizarrement sama internet.